nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse tey sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay si mu leex wax li xew ci riimas ko sunu gaal gi yëgle kaay gi ne maan 14 dong la am te kat kaay loo ci xamul doomi ñaareel bi aawo bi lañu ko dippee mu jël turandoom bi dem ba ca teen ba sànni mbir mu yéeme mu doy waar mi ma nga xewe fa nga xamante ni moo di ca yëmbal waaye lii duñu ci wax lii soxor lam lu mu les échos yëgle kaay naan maan ginnaaw def gi nga xamante ne moom la def jëf ju bon ji moom ndaw si lee da daani pëccët ñël mi daw waaxu wuti fa nga xamante ne moo di ca toog ci kër yeeg yenn gaa yi nga xamante ne ñi ngi ci mbedd yi di waxtaan ak ataaya chaque jour ñu am gan mbootaay yeeg association yi ba jaaxle yi ci jamono ji ñu toll nii tembe saa su nekk dañuy am gan ñii di def ay porte à porte ñii yéeg seen wata di ñëw wata bu dem beneen dikk élection yee naan man façon bu ne la ñuy gis le public quotidien yëgle naan man ndax man nañoo am koo xamante ñëw ne expliqué ñu li nga xamante ni moo di magu yi alliance yi ñu nemmeeku yéen leader yi ci jëmi boppam choisir nañ koy defee nu leen neex la ñuy coalition gu ñu a àndal ñu nemmeeku ci ay trahison yu dul jeex ay transhumance étranger politique ñii di garantir seen liberté ñii bu ñu demee ci campagne yan argument la ñuy développé gis ku ne a frustration yi nga xamante ni moom lañu ñu nemmeeku ci président yi bu élection ñëwee alliance day am ñi ànd am ay rivalité ñii di xasante ak xëccoo ñii di trahirante ñoom président yi fi jot a jaar nañ dem trahison bu doy war la ñu nemmeeku ci diggante Abdou Diouf ak Senghor dëggit ay relation conflictuelle la ñu nemmeeku diggante Diouf ak Wade xëccoo xiiroo mbaaloo bu dul jeex diggante Wade ak Macky du jonoo àndoon ca njalbeen ba yàgg nu jaar nii kii jaar ne kee jaar ne kii nekk opposition ki nekk pouvoir nuy xeex ak xuloo lee Wade ak Macky laay wax di yëgle kaay gi naan man xoolal ma fi toll ak comptes à solde dëgg lees nemeek l'observateur yëgle kaay naan man reddition des comptes ma ne ministre Macky Sall yi waax wuuti prison duñu ci wax bëgg rëcc dee tax ñu fas bokk ci li nga xamante ne moo di élection yi fas yéene doon yi député waaye lu ci am ba des Macky Sall ministre mi topp gi nga xamante moom leen Sonko di ak Jomaay di topp duñu ba ak lu mën a xew ñoom dañuy topp ñi nga xamante ni ñoo yoroon xaalis réew mu askan sunu gaal gi xool nu ko sa waar fu ñu toll nii tembe Macky Sall appe ma ngay woo ñi nga xamante laa la wax ñoo di ay militant ku mu xam nga doon militant nekk ci geneen coalition Macky Sall ma ngay daj lu mu mën ak lu mu mënul ngir nga dikkaat am na sax ñu bare bari ñoo xamante ni nekkoon ci ay coalition dellu nan fa Macky Sall toog ni fii la ñu dëkk le peuple quotidien yëgle kaay naan man ki nga xamante moo nekkoon aw candidat ci élection yi ñu génn di Amadou Ba fu ñu toll nii tembe ñu bare bokk naa ci sa coalition jàmm ak am nga sunu jàmm am sunu njariñ jàmm ak njëriñ ba Amadou Ba deeni moo ca nekk yaakaar leen ñu wàccaat kaay ma la ña bàyyi ñëpp laa wax bi na gudd na lool nañu dem docteur Boubacar Sy responsable politique wàcc na Dalat Mbengue yëgle kaay gi naan man Mamadou Ndione maire de Diass bàyyi na madame Dieynaba Diallo présidente des éleveurs du département de Kaolack wàcc na Amadou Ba Adel Kitaan coordonnateur de la nouvelle responsabilité ca lat mbé nga yëgle gi naan man bàyyi na Abdoulaye Dieye ca Thiès woon na ginnaaw Amadou Ba yëgle kaay gi naan man kaay mox la ca Dakar ca Koungheul ca Diourbel ca Touba Saint-Louis Matam gaañaa ngay daw di bàyyi Amadou Ba comme pas possible ay partisans yi laat Diop ca Géejawaay yëgle kaay gi naan man ñi ngi menacé di voter contre liste jàmm ak njëriñ Moustapha Niass wëlbatiku di demander naan Ba waaye ñun fu nu jëm ci lii te yile élection du bokk élection yor yor yëgle kaay naan man Bart Orze ëpplew ci l'élection législative novembre yi nu jëm le tey mooy quotidien yëgle kaay naan man Barthélémy Dias mais en péril Anta Babacar Ngom yum ak di ñamu àndal ñëpp laa la wax bu wattuwut seen xeex beek coow leeg liggéey beek lépp day tàbbi géej ay waay Barthélémy Dias lu tax na te doon candidat yëgle kaay gi naan man du leen lu dul mbirum yoon yoon rek ko mën a tënk waaye du waxi kese révélation daal li ñu jàpp ni bu ñu ko dugalee tax li mu Dias du jàll candidature am du dem mu bañ a ban a bokk ci élection yi nu jëm mooy mbirum njaga Diouf ñoom daal mbir moom lañ jàpp ni buñ ko roofee galgal dinañ am dara ngir Barthélémy Dias bañ baña bokk waa ànd liggéey sunu réew yëglekaay gi naan maan ñoo dugal recours bi grand panel yëglekaay naan maan waa sàmm sa kàddu jóg nañ lii ay rumeur la amul li ñu wax dara dara da cee nekkul Walf kay ma ngay jégalu ñi di baalu ña nga xamante ne ñoom ñoo di waa coalition bi laa wax l'indépendant yëglekaay ni ma may ma may ma ñëw invalidation de la candidature de Barth coalition sàmm sa kàddu jóg nañ ni dara dara da cee amul waxuñu dëgg laa la wax te naan ma recours bi nga xamante ni moom la coalition bii di takku wàllu defoon jëmale ci ki nga xamante ni moo di leaderu Pastef bi li Sonko contre attaque moom Ousmane Sonko ci jëmi boppam laa wax ay avocat mu ña koy défendre ba mu saf sàpp laa wax ngir rek mu mën a bokk ci élection yi nu jëm tribune yëgle kaay naan man ci jooju la jamono sénégalais yi di gën di sonn di gën a fatigué oublié ne kaay bi population bi di gën a dugg ci galère ñi am di gën di bari la ñiy néew la gën di néew la lii dee xew ci ji jamono waa dëkk bi bu deen dëkk attractif la day xëcc investisseurs yi moo tax sunu jeunes yi ci jëmi boppam di xëntee génn di dem Europe ci ñàkk seen bakkan promesse yi nga xamante moom la ñu masona dikk ci li nga xamante ni moo dund gu seer gi ci loyer yi gisagunu ko ci paj mu yomb gisagunu ko logement yi yomb gisagunu dara digée rek digée rek xoolal ca Senghor ba ci ki nga xamante ni moo di Abdou Diouf ba Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ba ci Macky Macky ba Diomaye ba na la ñuy gis ay promesse non respectées la tribune yëgle kaay régime gi lee gi naan man sunu équipe nationale bi niki suba ak jàmm la fas yéene laaleeg Malawi attaque ba la ñuy laaj ana ñan ñoo fa war a nekk ubbil yéenekaay bi cinq trois places du xam nañ Sadio Mané kenn du naatable ab titulaire Nicolas Jackson a nga fa retour Boulaye Dia Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye ca dëgg-dëgg du neex a classé sëy laati bu baax rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak sax a ngi doon déglu seen revue de ne a ngi may déglu di ma teewlu saa su nekk euh, di teewlu Télé Sénégal Thiès Info euh, Sénégal ñu kontaan ci yéen bu baax a baax a baax yéen ñëpp rek ñi nga xamante ni yéen a ngi nuy bàyyi xel waaw wax naa ko léegi lii kenn daa xamul lu muy niru yow yàlla dogal na nga nekk ak sa wujj ci kër nga ñëw nag di aaw di góorgóorlu di góorgóorlu yàlla dogal sa borom kër dem ba ay xéwalam yokk ngay aaw ñu naan aaw na la jig ak maire di la woyal ak lu ne nga am ko ci kër gi waaw nga dem a dem a dem ba ñu may la njëkke ndax aw bu baax ñu may ko première njëkke bi ñu la mayee première njëkkee nga moom ko muy sa njëkkee mu lenn lii yow yaay borom sab cër la du cëru kenn xale bi juddu ñu jël doom ji tuddee la ko ak loo mën a jote ak yaayam ak lu mën a doon sa problème sa diggante ak yaayam waaye waaye rek waaye war ngaa mën a nag bañ nag jël xale bi nga xamante ne quatorze moi la am quatorze mois mooy at ak ñaari weer xale bu am at ñaari weer lu mu xam ah nga attan koo jël muy saw turandoo nga jël ni ko tëmbal ci teen ba man daal man daal man daal man daal jommi ah yenn yi nag la ma doon wax naan ka daggoon làmm ñu fas wa ba pare teg tegal ko borom fas wa foofu ca ca ca ca kii ba ca ca pëna ba dagg làmm ñu fas ba pare ba ko fa borom fas bi gis ko xolam di dagg munu ci dara waaye kii tamit jël doom yi doom yi doom yi wu jëm wii sànni ci pen teen bi ba pare daw nag ah miti na na lool man di man dama xamut man sama problème mooy soxorte gi man laa xamut lu ko jar sama xol bi jeex na tàkk ci mbir mi bàjjen xuja jaajëf sëñ Abdou Salaam Sarr ah war nañ cee defi tegtal ak i jàmmoo nag wax ci lijjanti mbir mi hmm? ma nuyu bu baax a baax bàyyi daam njëre ñoom Amadou Papi Diagne madame ture borom bës bi ñëpp bëgg naa leen jox leen seen wàcc waay kontaan bu baax a baax ñoom Xaadim Assane le jeune leader également di bëgg bu baax a baax ñoom Mame Bousso yaayu Xaadim Mame Bousso moom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen kontaane kontaan ci. Euh, jaxatee ca pirum ndëri sama xarit maa ngi koy nuyu waa pirum ndëri gi yëpp ma kenn waa Gosaas Sédhiou Matam ba ci ki coor waa Mbaye maa ngi lay bégee jox sa waay di kontaan ci képp ku nekk ca Gosaas rek ah Baye Dame damay déglu maa ngi koy nuyu Baye Dame Gosaas sama waa ji jox ma Jakarta bi nga lànk doo ma ko jox maa ngi lay bégee di la jox sa wàcc waay di bégee képp koo xamante ne rek yaa ngi nuy teewlu ca Xombal Kaolack Sédhiou. Matam Ziguinchor ah Vélingara ba Dakaaru Njaay Jal jof ña ma fay teewlu ñëpp waaw gaa yi commenté leen ku commenté ma tudd sawtu kon nag gaa yi ba subaak jàmm jërë ngeen jëf